salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen dalal euh, teewlu nañu waxtaan bi wax ji am na solo liñ ci dégg mooy waxe nga ko ci dal waxe nga ko ci xam-xam waxe nga ko ci ak bëgg ñu ngi lay dalal bu baax teewlu nañ la bu baax aussi di wax rek ne ñun xañ na bërëb bi ñu yëngu biñ ko sancee ak léegi yàggul su ma juumul un an lay door a def un an et quelque ñu ngi fii wu nag lépp nag ñu koy ñu ciy yaakaar suñ boroom comme niñ ko yàggoon di defee ba lii ñëw loolu boo gisee ma di ko wax mooy dinaa ci ñëw mais daal li ma la bëgg a wax mooy lii nga fi wax lépp diglu nañ ko te teewlu nañ ko te ci xol la jóge ci xol lay dellu dinañ am yéene ak Pastefu jéem leen a jàppale seen projet bii danañ ci waxtaanaat suñ biir parce que tey point yi bu dee cent pour cent la tey cinquante yëpp am na lu ñu ci comprendre te am na lu ñu ci dégg juste ko digluwuñ la pour que ne politiciens ñoo fi ñëw dafa am nañu yaakaar ci yéen yaakaaruñ dara ci lu ngeen ñu jox juste ko man tey gis nga bu ma fi déggoon affaire u xaalis tey yu ngeen fi bàyyi yooyu man damay rocceeku parce que su ma juumul am na ku ñuy wax Galas Kaltoum 2012 bu Macky Sall yi gagné élection yi ñu war a def député ñun ndaw yi marché Ocass boobu wala ñu ci ëpp boobu bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon jàppale pour mu mën a falu. bi loolu di am muy ñëw di ñuy seet si jàppandal gi jot téléphone gi lépp disponibilité gi lépp day jàppandi day boo ko bëggee jot da nga koy jot soo ko bëggee soo bëggee mu recevoir da lay mais ginnaaw fal gi bi mu amee lim ñu diggoon lépp gisuñu ci dara. moo tax man ne la tey su ma fi déggoon ay affaire tey financement wala xaalis bi ngeen ñuy yox nangam nangam man damay rocceeku parce que man du loolu la ñuy xaar ci yéen ñun li ñuy xaar rek mooy dëkk bi ku ne xam ne ne metti na ñun ñu ngi suturlaw mais am na ñu ñu gën a metti am na tey dëkk boo xoolee tey gi mi ngi jub si am na ñoo xam génn nañ seen i kër am na ñoo xam tey liggéey ñu amoon ñàkk nañ ko bëri na fii dëkk bi yoo xamante ñu ngi ci kaso bi bëri na naqar ñu di ko daj ci suñu xol mais lépp dañ koy delloo suñu borom mais gis nga li ngeen fi wax nii tey suñu ngeen fi jógee danañ am bëgg-bëgg gu toll nii ñu fi taxawee nii ba diglu la danañ waxtaanaat ba jéem leen a jàppale mais nit ki aussi su lay jàppale liñ naan nit ki su la nekkalee ci naaj bi danga koy nekkal ci kër gi juste ko projet bi ngeen am su yàlla dogalee tey bañ dugal ci seen loxo bu doon kenn nit la sax kenn nit ci ñun ñii ñëw na ànd ceeg yéen jàpp leen ne tey loolu tey mbir la moo xamante ni yéen a ko sàkk woon te ba ngeen koy wut su amee ngir yàlla na ngeen ñu gestu na ngeen ñu wan ginnaaw man waxuma ngir sama jëm mais juste que dama xam yi fi jaar yëpp soit nit ki mën na bëgg dara dem ci terrain bi sonnu def ay effort am ba gagné loolu mu gagné mais après yaa a des choses yoo xamante ni ci ginnaaw yaa ma gën a xam. kon liñ leen di ñaan rek mooy li ngeen di wut ñu ngi leen koy ñaanal suñ borom jàppandel duñ ne ñun ñoo leen koy jox mais ñun bëgg nañoo ñaan nañ yàlla bokk ci ñi leen koy jox. tey tubaab li mu gën a ragal tey bu taxawalee société am tey ay nit di ci liggéey. bu ci nit jugee rek comme tey lu demee ne entreprise tey boo nee orange wala Free wala une entreprise yi tey bu amee benn client boo xam am na lu muy ñaxtu client boobu lay gën a diglu client boobu lay gën may bët parce que client boobu tey mën na ko yàqal lu bëree bëree bëri comprendre nga fi ma waxee kon seen projet bi ñu ngi leen di ñaanal suñ borom jàppandal leen ko Abdoulaye la xañ na yàgg nañ koo dégg comme ni nga man miinu ma ko fii itam bu ngeen ñëwee dafa am seen bu ngeen jaar fii ba tax ngeen agsi fii ñun fii xañ na Modou Gueye peut mën nañ ne mooy kilifa gi wala boog moom bokk na ci ñi nga xamante tey boo xee ñu diglu ko moo ñu taxawloo fii moom xañ na am na ko ko fi indi moom comprendre nga ba mu agsi ci yéen ngir yàlla lii ngeen def nii ak seen bi nii mu jaar nii ba agsi fii continuer leen noonu bañ a teggi seen tànk loolu rek lañ leen di ñaan xañ na bañ bañ a guddal rek mais liñ bëggoon a tënk lépp xañ na xajul fii mais xañ na bu ngeen fi jugee dinañ waxtaanaat suñ biir ngir jàpp mais jàppale gi séentuwuñ ci dara séentuwuñ ci ay xaalis wala dara mais rek liñ ciy séentu mooy bu ëllëgee tey li ngeen di taxawal tey ngeen bañ a fàtte ndaw yi nga xamante ni ñu ngi Touba ñu ngi ci marché bi ngeen mën leen a jàppale bañ am ñun loolu rek la ñuy séentu parce que lii lépp jaar nañ ci jaarati ci jaar nañ ci jaarati ci ñuy taxaw nii di wax ak ay ñu soxla dara ci dëkk bi wala ñu soxla dara pour bëgg ñu jàppale leen ci mais nit ki su la jàppalee à chaque fois bu loolu réussir da ngay xool donte sax di nga def effort tuuti doo mën a def lépp parce kenn mënta def lépp yàlla mi nga xam moo sàkk jaam ñi sax ñëpp gëmuñu ko am ñoo xam dañ ko weddi ba tey yonent bi noonu ba sëñ waa noonu kon tey bu lii réussir te am nañ ci yaakaar mu réussir na ngeen gestuwaat ñi nga xamante ni ñoo seen wala fi ngeen jaaroon ba lii réussir na ngeen gestuwaat loolu loolu rek laa amoon ci li ma leen di wax jërë di la dalal jàmm ci seet si gi ma seet si eh, ma toog woo sama am di jàmm yi ñu ñëw teewe ko teewe bi ñu ko teewee nag maam dañoo boole suñu lépp ñu muy benn képp koo xam na ni saw naqar moroom mooy sa naqar sa mbégte mooy sa mbégte moroom moo ñu dajale fii tey di la dalal ci jàmm di la ñaanal yàlla sëñ Tuubaa teg la ci yoonu jàmm seen société bi aw ci yoonu jàmm ñun nag comme li mu soox rek li ma waroon mu wax lépp mu soox na daanaka amatut lenn lu ma ji teg lu dul maam ñaanal leen Euh, ngeen dal ci jàmm xam ne ñun man bokk fekk naa li ngeen defoon ci marché bi muy euh, woto vidange bi ngeen ñu ñu ñu may ci seen euh, teyu bakkan ak woto mbalit bi ak defaral ñu canalisation yoo xam ne da ngeen ko synchroniser ak yu mag yi ba benn jafe-jafe amatul ci marché forot bi ngeen def ko at moo xam ne ni da ngeen a jël dëkk bépp fu xóot ngeen sëkk ko ba maase defar ko ba màggal ga mel ni e, da dara musta e, yàqu lépp defaru kon nag foofu lañ leen jàppee xam ne ki la ki la e, woo nga reer bu la diggee ndékki yaakaar naa sa xel war naa dal sa xol war naa seen kon nag ñun dañoo fekk ñuy góorgóorlu fekk ñu ñuy ñuy daan suñu doole di di wet suñu ñaq képp koo xam ne nii may nañ la temps di la déglu maam bul jàpp ne maam dañoo lott dee déglu wala dañoo sonn dee déglu dañ lay déglu pour ja jariñu ci walla nga nga jariñoo ci bu boobaa nag yal na njëriñ li am bu bu bu amee nag euh, ñi nga xam ne nii ànd ko ak ñoom bu leen fàtte parce que fàtte day day day waral ëllëg boo soxlaa ñàkk te la ngay soxla di ñàkk maam teel koo ref tel moo moo gën yaakaar naa euh, Sylla bi ma koy xam booba tout tànk laa booba yaakaar naa mi ngi ci gare ndaw ci station bi jàkkaarloo station booba ma xamee yàgg na booba tout tànk la di di romb këram di dem ak rik yaa ya bon nag daanaka lu ci bëri maam ci dëkk bi laa nag doomi dëkk bi laa doon xam xam xam naa xam na xam naa luy dëkk bi bon nag euh, képp koo xam ne nii ñëw na fi pour pour liggéey ñun liggéey doo nga ñëw képp koo xam ne nii defaral la tax a jóg ñun ñu ñu ñu ngi lay jàpp di lay jàppale di di di la déglu te loo nekk itam ci la la nekk li ngay wax nag comme li Moussa wax mënuma cee teg leen dégg nañ lépp danañ ci toog waxtaan ci lépp décision yuñ ci mën a jël danañ ko jël ànd ceeg yow bu soobee yàlla. firaari bil muxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiran ladal jinni wal bashar li baaqin maa dur alladi hada badar salaatu alladi anumu abdan loo bi ala man bi li xaada sabwan bila kadar fasaatu xayri lxalqi abda qasaayidi wa kawni bi abdan xadiman loo dëkk bi ku fi yàlla teg dëkk bi sa loxo wala nekk fi di liggéey jàmbaar nga jàmbaar nga defal nga waa dëkk bi léegi nag su keneen ñëwee bëgg a dolli te ñëpp di doomi dëkk bi mais dañuy waxtaan ak yow suñu waxtaanee ak yow te yàlla def na li nga xam ne moom nga ñu wax gis nañu ko te day yokk rek xam daray wàññi amu fi bu wàññi amee moom dañuy bàyyi mais bu dee yokk day fekk keekoon lam fi defoon yow ñëw nga sofaat ci ndax defe naa dëkk bi ku ñëw fekk ay nit yor ko nga ne man kat damaa ñëw ngir jàppalewaat nit ñooñu ngir dëkk bi gën a avancer mais yaa ngi dimbale sax borom dëkk bi yaa ngi dimbale actuellement ki ne ci dëkk bi ndax su fekkee ne da ñëw nga ne ah man de jigéen ñi ne woon fii ci marché bi di jaay ay lam di jaay nangam damaa bëgguñu amal leen xam-xam boo xam ne su ñu ko amee léegi danañ mën a danañ mën ñoom ci seen bopp danañ mën a defaral seen bopp seen yoo xamante ne dañ koy defar di ko jariñoo muy lu mel ni ay produit comme ni nga ko waxee ay saabu ay leneen ak leneen mais loolu loolu boo ko waxoon tey borom dëkk bi kit moom dëkk bi tey moo ciy gën a sawar moo lay gën a jàppale pour nga def loolu sama gis-gis ndax yàpp naa ne moom lu amaat dëkk bi la bëgg la ca des nag ca kanam la ne soo leen defalee ba defal leen loo xam ne xam nañ ne lii nga leen defal keneen mënulu leen ko mais gor moom gor rek la mën a doon la nga leen lebal lañ lay fay te xam naa ne ñii man man ak ñoom ñoo nekk am na ñoo xam ne xam naa ne parce que samay doom lañ ndax sama doom ay seen moroom la mais xam naa ne mosuma leen a dégg ci ramasse sax mosuñu leen ko def fii la ñu ne di liggéey liggéey bu tegu ci yoon boo xam ne et ñoom ñoom ñoom ñooy nekk ci seen biir di waxtaan di liggéey kenn du leen yàpp kii ngeen ñëw place am mooy Ablaye Kane moom moo nekk vice président marché bi ba pare moo jiite chaîne bi maanaam lu jëm ci setuk marché bi ci loxoom lañ ko teg te lu ci war mi ngi ko ciy def bu dee matériel am da koy génnee bu dee xaalisam da koy génnee président bi nga xam ne moo yore jiite marché bi muy Modou Diop Dia kooku itam encore lu mën ci def mi ngi koy def ay xale yu am jom lañ te ñii itam déggal nañ déggal nañ leen ñoom parce que bu ñu leen déggalutoon soo fi ñëwee duñ la indi place laay dañ la yóbbu seen xarit yi rek ngeen toog waxtaan mais fii ñu la indi mooy maanaam maanaam li nga ko mën a mooy këru marché bi mooy ndiggul marché bi comme li nga wax léegi mm-hmm. ndiggul marché baa ngi nii ñoom ñii dañoo bootu ci laay mii lay ànd ak ñoom ànd ak waa marché bi waa marché bootu ci ginnaaw laay ak mat jóg ay xale lañ mais ay jàmbaar lañ mm-hmm. lii nga wax nag man sama gis-gis nag laay wax man de lu ma nit wax ci senegal dinaa am sama bët xool am sama xel ànd ak yow di xalaat ba xam li nga wax ak dana bokk ak ni nga koy defee wala de waaw na nga xam ne daal fii moom Mbàkke ku fi ñëw ngir yokk leen tàllal nañ la loxo ku fi ñëw ngir dimbale suñ jigéen ñi ak suñ xale yii ba liy dal ci réew mi du leen dal pare nañ ñoon pour par ndax xale yi buñ sañoon ñu jàppale leen déwén ku ne yor sa entreprise su bopp kenn du dem fenn parce que li xew ci réew mi léegi metti na trop ay xale yu mat juróom-ñaar fukki xale wala juróom-benn fukki xale ñu deendoo ci benn temps loolu ñaaw na te lu ko waral dañoo dem wuti lu ñu am rek kon suñu ku ñëw ne damay jàppale jigéen ñi xale yi mais vraiment dañ lay ci tàllal suñu loxo di ñaan ni ngeen ko yéenee ab Ablaye Sylla boobu ngeen wax ni mu ko yéenee ak ni mu ko bëggee ba ñëw fii ci département Mbacké ñëw ci marché Mbacké yàlla dimbale ko dimbale ñu bañ am xelum mën a dégg lim ñu wax mën a mën a xam fu mu jëm tànkam moom it ñu xam ñu xam fi mu jëm ñun itam ñu xam fi mu jëm pour gàttal heure bi dafa dafa xat waaye daal ñun daal li ma la wax rek mooy nekk dégg nañ leen ñoo ngi leen di déglu di leen xool lépp lu ngeen ñëw wax keeg ñun mhm. danañ ci wax a yéen lañ ci war a wax parce que li ngeen wax lu baax rek la développement rek ngeen wax li ma leen ko waxee ku yokk moom ku ñëw tàllal ko loxo mu yokk waaw maa ngi jégalu. salaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou suñu borom dolli ko fa yàggal loolu te wéral ko di ñaan ci safar gi nga xam ne ci la dugg suñu borom defal ñu ci kàttan ak ndimbal ak yéene ji nga xam ne nii moom lañ ci am suñu borom defal ñu ci lu kawe suñu njott bañ defee ko ni ko sëñ bi bëggee ci barkeb Seexul Xadim di leen nuyu ci turu le président mu Diop président marché central bu Mbàkke ndax léegi laa ko woo mu ne ma dafa am benn convention bu ñuy signé ji mairie moom ak le président ul et marché Modou Bakara pour nga xam ne ñoom it marché bi danga leen ñor te képp ku jug uniquement pour jàppale waa marché bi wala nga bëgg a dimbale doomu marché bi doomu dëkk bi dañuy jug uniquement pour taxawula ci loolu ndax ñoom juguñu pour seen intérêt bépp mais jug nañ pour ay intérêt général te li nga wax fii ay intérêt général la yoo xam ne nii képp ku nekk nit tey xalaat amam xel xam ne lu am njariñ la lu mën a dimbale doomu aadama yi la développement nag ci sa dëkk nga koy tàmbalee comme ni nga waxee te acte bii nga wax acte bu noble la acte bu rafet la ñun nag dañu fee nekk comme en tant que premier vice président marché central bu Mbacké représenté fi président yeeg vice président yeeg secrétaire yeeg ainsi de suite waaye di la waxal ne sama rakk yi ay xale yu baax lañ ay xale yu am jom lañ ay xale yu nangoo liggéey lañ ñoom ñu coordonné lii ba nga yëg si fi yaakaar nañ ne njëriñal kese lañ rek moo tax ñu indi la fi saanafin bi dara dararin muy njëriñ lu àndul ak lor mooy jël nga intention jariñ leen te fa siwloloo loo ne jëriñoo kon dañ lay sant ci loolu bu baax a baax di la wax ne danañu ko ànd ak yow bu ñu jugee fii aussi danañu ànd porte à porte visiter marché bi nga xool ko comme ni nga ko bëggee su ko defee intention boo fi jël ngir bëgg koo dimbalee marché bi wala nga bëgg koo dimbalee doomu marché bi fi nekk na nga xam ne ki fi yàlla teg moom nga koy dimbalee. kon ñu ngi la ciy sant bu baax di la remercier ci déplacement bi ndax temps dafa cher donc bi nga déplacé woo sa bi ñëw jël fii sa temps pour ak ñun ci lii. dañoo jàpp ne njariñal kese la kon ñu ngi lay ñaanal yéene yi ak mébét yi ak xalaat yi yàlla na ko suñ borom sottil te bu ko sottilee bu ko sottilee muy njëriñ luñ fekkee ci barkeb Seexul Xadim xam naa ñu ngi jéggalu ci kàddu yu gàtt yi waaye yéene ji rek moo ëpp moo ëpp lii foofu te xam naa ne yéene ji nga am pour développement commune bi wala développement département bu Mbàkke euh, moo ëpp lii ñuy wax dañeen ci ànd ak yow euh, ci lépp luy njariñul dëkk bi Euh, te man te askan wi mën koo jariñoo dañ ci ànd ak yow bi soobee yàlla rabitu rabaan lam yakun qat misluhu bi fadli lazi kawni habiban lustahar salaatu lazi li xaada kawni xaliluhu ala man bi li tayyabal badwa wal xadar futuhaati rabbil arsi an qad maa ibi bijaahi allazi baahat bi man alaw mu dar rabaayi fi ixdaami xayril wara badaa wa fi kulli shahrin zaydu rubhi wa fi safar rabaayi fi ixdaami xayril wara badaa wa fi kulli shahrin zaydu rubhi wa fi safar salaat في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبص والصبر فلاهي بكوني wax dëgg yàlla war nañu yërëm jaam ñi ñuy toog seetlu yam ñu di ko jël kuy toog nag danaan moo toogee damay delloo si géej gi damay def li damay def la te liggéey liggéey doo ci def dara wax dëgg yàlla tool nañ foo xam ne fii nag ku toogati boo toogee ñetti weer sa defoo la nga wax war nañ laa mën ne la wala am at rek ñu ne la wàccal te joxaat na sunum réew nu seet beneen solution moo jaadu boo diggee kay boo diggee wax junne yor kee nga wax ko bind ko war nga boo ko booy dund ak noonu dund ko ak noonu ci kaw yoon. màggal gi borom màggal. jërëjëf jërëjëf ati. ñu ngi lay delloo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 صلاة الذي أنوم عبدا لوبي على من بي لي خاد سبوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما لو سهر ربيت ربا لم